ñun daal ci euh, li ma doon euh, ci gouvernement du Sénégal tax na suñu posture républicaine mooy euh, conseil constitutionnel jël nañ dogal naam bett na parce que bu ñu xoolee dogal yi nga xam ne mënoon nañ ko saytu mën nañ jàpp ni ci ci en tout cas ci taxawaayam daawul jël dogal bu bu ni mel ci li ñu naan une loi constitutionnel di fàttali itam que initiative boobu souvent damaa ngi dégg ñu wax le président de la république du initiative président de la république euh, moom nag mooy garant euh, du bon fonctionnement des institutions. lan du initiative bu président de la république. mais c'est une loi constitutionnelle votée par l'Assemblée à l'initiative du ouais, groupe parlementaire bi nag kan moo ko moo jël moo tax ma ne la quand on amène une crise entre deux institutions xam nga exécutif nekku ci woon moo waral mu jëloon le décret d'abrogation parce que nag gis nga ci euh, ci décision en tout cas ci considération yi nee nañ le conseil conseil mu ngi invité les autorités compétentes parce que du moom pour ñu euh, euh, convoquer ce corps électoral rapidement donc ci ay prérogatives moo convoqué ce corps électoral may fàttali ni loolu it c'est encadré par le code électoral dañ ko encadré ci ay ay ay délai donc déjà dama laaj li ma ci xalaat mooy que nii dañuy jël acte de mon point de vue xaar Euh, à plus ample informé parce que comme ni nga ko waxee ñun ñëpp la bett yow mii sax di taskatu xibaar bett na la euh, naam scénario boo xam ne mën na ñu ko doon jàngat man na nekk euh, espérer itam li ko waral danañ ko gën a saytu danañ ko gën a leeral parce que quand même man de personnellement en tant que léegi sama casquette de citoyen jàpp naa ni accusation yi accusation yu grave la yoo xam ne dana baax itam ñu leeral ko pour xam ci lan lañ ko lan lañ ko teg te ñi ko porté woon yan firnde yan preuve lañ ci am parce que loolu si dafa am solo parce que bu dee eh, loolu lépp amul euh, foog naa ne ay dogal yu am solo war na am ci réew mi parce que nag suñu institution dañ leen war a sacraliser eh, jox leen dayo bi ñu war a am parce que ñun ñëpp suñu kaarange suñu stabilité eh, ci loolu la ne boo seetloo ñaari fan ci gannaaw def naa benn sortie bu ma doon wax ni euh, suñu suñu euh, paix durable ak suñu stabilité amul njëkk amul njëkk c'est maanaam tout sacrifice baax na ci parce que foofu laa tegoon euh, le président de la république may fàttali ni sénégalais yi président de la république bii ñuy wax moo euh, wàññi mandat présidentiel bi de sept ans à cinq ans ci coobare ci moom moo ko def euh, kon du woon un pouvoiriste moom moo bëggoon delloo son mandat son premier mandat de juróom-ñaari at ci juróomi at xëy na nag ci constance boobu peut-être le conseil bi da bokk na ci considérant yi mu def d'ailleurs wax ni euh, waxoon na ci décision boobu en 2016 que euh, président mënul wàññi mandat donc ci lay sukkandiku it mel ne mënu koo yokk donc daal euh, jàppal ni may mu nag ñu ngi ci situation bu bees. bu garaaw. bu garaaw bu dee sénégalais dañ ko bëgg a mais.